jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a safoo chaîne mag bii di académie Minane TV ñu ngi leen di nuyu te di waaye nag jënniyoo bi ak ziar bi di ko ci ki nga xam ne mooy Serigne Mountakha Bachir xalif général kullu murid di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér dal leen ak ci seen reportage di defee saa yu ñu ngi fii ci complexe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul fas yéene ànd ak boo xam ne dañu koy taxawal fii ci université bu Cheikh bi ngeen fas yéene ci ànd ak seen yoon nekkoon ci caméra bi ci ànd ak Serigne Mountakha Ba léegi léegi lay doon ci chaîne bu mag bii di Académie Minane TV incha allahu rabbi bismillah ikfini adana ya allah safi baqa abin بفيك يا الله يا من له الأمر يا من لا شريك له وسي وما للوعد لذيك يا الله وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوسي gannaaw ba ñu duggee ci biir université bu Cheikhul Khadim daal dinañu door suñu liggéey ci visité tolluwaayu liggéeyu Touba matériaux muy sànce yoo xam ne Abdou Lahad Ka bu tuuba moo ko jiite yooyu les liggéey ba ma ngay jëm ca kanam asal musawiru qal lilil nabi bu saaran wasawiran li yaadoo nal mag يا الله غفرت لي كل ذنب قد أتيت به لسأت بسكريا يا غفار يا الله غفرت لي رديئك دعي بلا سبب مني غمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا ذاك مسألتي فلا كسك ريايا وأبحي الله لغوت أزمان اللج يا من له أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله ألم تنل قيبات تعفت منتميئا أتى الأليم لاسي ألمت يا الله خبرت يا قابل أسواء وانصرفت li xayri na wiyaakal addaar yàllaaw basaaka yaa baasitul amaala li biridan faskur ma baasatee daarayni yàllaaw basaaka yaa baasitul amaala li biridan فاذكر مبعثة دارين يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخير في بقف منك يا الله رضيت يا رافع الدارين مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك يا ياسود دارني مرتبتي بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك يا رافود دارني مرتبتي بلا انقفال بفضل lin minka ya allah anta almuiis laasi laa sabtu isat xilan muiisan waaxib بل فيك يا الله أنت المسل الذي صلى لي ستي ألم سوى الجنوب seytaanu yàllaaw anta sami ulasi naajitu woo samanan wabil masaratili xat jut ta yàllaaw antal basiru lasi li xaada jumlatama lixtarta dunya wa uxra minka yàllaaw أكمت يا أكم باقي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله على يا أدلو داعي بخير لقاف ولا لراري وليم قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت gannaaw ba ñu bàyyi ko foofee daal nañuy dem ci chantier yi nga xam ne moom la waa bu Hizbut Tarqiyyah di taxawal ci université bile ba ñu fa yegsee fekk nañu fa mbooloo mi nga xam ne ñooy liggéeyee ci yooyu les chantier waaye ko ca gis ma ngay ànd ak ca warte gu mat sëkk ca la muy def boobule liggéey ma ngay avancé bu baax a baax. ككبير الأجر يا الله أتى الأفي ثلاثي وجات في أباد إلى سواي الإيداع والضر يا الله أنت المقيت لاسي خلقت لي رقادا بلا إصاب إلا الجنات يا الله أنت الأسيب لاسي قد اكتفيت بي عن الإدعاء والآسى والكد يا الله أنت الجليل لاسي ساق جلالة إلى سوانا لدى دارين يا الله أنت الكريم لاسي قد قدت لي كراما دنيا وأخرى معك تفسيره يا الله أنت رقيب لاسي بانت صيانته كليتي عن سوى رلوانه يا الله أنت المجيب لاسي خادا بخيرانا إجابة منك لي لاخترت يا الله وإنك الواسع الباغي ولي أبدا وزهت توسئة بالإبخ يا الله أنت الأكيم الذي أبلغتني لسوى ما زاني وما أو تسوء يا الله أنت الودود لسين خادا موادته لي سرمدا بريلا والقرب يا الله أنت المجيد لسي بان المجادة وخط أبتلي منك مجدا فاخ يا الله وإنك الباعث المبقي بلا ضرر كفيتني جملة الأقدار يا الله أنت سيد الأنسين خاد سهادته لبترايك من نساك يا الله يا خلوص الضيعة كلام جملة ما لم ترل لي مطلقا بالفضل يا الله يا قليص أبي أقن وم جملة ما لم ترل لي مطلقا بالفدر يا الله أنت الوكيل لاسين قد اكتفيت بي في الدفع والجلبية سالخلق يا الله أنت الوكيل الذي قد اكتفيت بي في الدفع والجلبية سالخلق يا الله أنت القوي الذي خويتني بردا في سر في سر والجنية سل أمر يا الله أنت المتين لاسي قد كنت لي بمنا ولا توجه للمكروه يا الله أنت الولي لاسي لا أبتقي بدلا بي ولي كنت بت التعمين يا الله أنت العميد لاسي وجات لي لأمم بلا قرور وقير المكر يا الله يا موسي الخلق والأفياء جملتي كليتني درما أحسيت يا الله يا مبتلى الرد عن خلقي ما لا تواجهني ما لا أحب رديت عنك يا الله gannaaw ba ñuy jógee ci liggéey bi nga xam ne moom la waa bu isbu tarxiya di taxawal ci université bu cheikhul xadim daal di nañuy jàll si ci liggéey bi nga xam ne moom la Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacke di taxawal ci complexe bu Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ba ñu yegsee ci bërëb bile dénk nañu sunu micro jëwriñ ji nga xam ne mooy taxaw liggéey bile ngir mu andil ñu ay leeral ci tolluwaayu liggéeyu Serigne Cheikh Abdoulaye ci université bu cheikhul xadim liggéey bi fi mu toll nii moom alhamdulilah rabbil alamin sore na bu baax baax ndax juma ji bu ñu xoolee nekk ni ci suñu gannaaw euh, karo bi sore na lool ñu ngi ci finition yi boo xoolee façade bi ci bitti lu ci ëpp noppi na fii pâte de verre yi war a nekk rek moo ci des bu dee ci biir jumaa ji karo nañ ko ba karo sol bi ci kaw yi ak suuf ba noppi laa nag li des mooy façade yi ci bitti rek moo des bu dee ci wàllu décoration bi tam li ci ëpp noppi na ba ñu ngi ci peinture yeeg yi demee noonu di wàcc si euh, bu dee ci yeneen wàllu électricité bi tam li ci ëpp dugal nañ fil yëpp ba noppi daanaka xaar décoration yi noppi rek ñu monté piliers yooyu moo ci des. li ci ëpp daal ci jumaa ji kon daanaka mën nañ ne euh, quatre-vingt-cinq pour cent yi moom noppi na waaw li des daal daanaka amatu solo. la ci dolli itam mooy miir bi nga xam ne mooy wër jumaa ji nga xam ne wet gu nekk dañuy natt dix mètres la koy wër wet gu nekk moom it miir bi gis nga ñu ngi gas fondation bi nii xam naa fan yi néew incha allah danañ ci jublu loolu daal mooy li nga xam ne moo gën limtu ci wàllu jumaa jeeg yooyu. gannaaw yooyu la leeral jëmee ko ci jumaa ji nga xam ne moom la Serigne Cheikh di taxawal ci université bi lee moom Serigne Mame Mor indil nañu ay leeral jëmee ko ci hôpital bi nga xam ne Serigne Cheikh Abdou Hakim mi ngi koy taxawal ci complexe bu Cheikhul Khadim. hôpital bi moom tubarkàlla moom daanaka mën nañ ne quatre-vingt-quinze pour cent yi moom macha allah wax dëgg yàlla daanaka euh, lépp daal yem na daanaka li ci li ci li ci kii daal daanaka bareetul. xam naa ay finition yi ndaw rek moo des moom wax dëgg yàlla gis ngeen yéen a gisal seen bopp matériel bi fan yii la fi ñëw muy fondation 221 indi ko ñoom it bi nga xamee ne yàlla dogal na euh, ñu ñëw bi sëñ Mountakha ñu ñëwoon ci moom waxoon ko ko suñu Mountakha ne leen liggéey boobu sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Akim moo ko yor da ngeen di ñoom ñoom it ñu waxtaan ci ak sëñ bi sëñ bi wan leen ñoom it ñu dem wax dëgg yàlla matériel bi gis ko mucc na ayib lool wax dëgg yàlla tubaarkàlla te it macha allah dëppoo na ak jamono lool fekk ni tam boobu bâtiment bi tam bi wax dëgg yàlla liggéey nañ liggéey mu ci ayib moom it li ci war a dem lépp lépp def nañ ko ci moom gis nga ñii climatiseurs yi fi mu toll moom it ñu ngi ci ñu ngi ci di ko monté ak yooyu léegi li des mooy monté lamp yi rek ak mu daal di mu daal di ak paawee bitti beeg yooyu waaye li ci ëpp moom it tubarkaale macha allah. waaw ñaari bâtiment yi bu ñu seetee daanaka wax dëgg yàlla li ci ëpp li noppi na ba daanaka liggéey moom fi mu ne wax dëgg yàlla ñu ngi ci jëppandal gi li ci des mooy restaurant bi te xaj na mun naa yàlla mën naa def ta tawfeex balaa yàgg ñu tàmbali ko moom itam ci liggéey bi la bokk waaye ñaari bâtiment yi nga xam ne moom lañ tàmbali woon daaw daal ba ren wax dëgg yàlla fi mu toll nii moom liggéey bi moom lu ci ëpp noppi na. moom mii de mi ngi xamal ne saa yu ne Serigne Cheikh Abdoulaye Kim day ñëw di ànd ak ñoom bi la liggéey. Serigne bi moom bis bu bis bu set daanaka mën nañ ne àllarba rek la dul xëy si wala mu am yitte ju ju ko ju ko xaw a ndax dañ ko fay defaral màkkaan moo xam ne bañ tàmbalee ba léegi bis bu set day xëy si fa lay nekk ba julli tisbaar ba noppi door a saa su ne day xëy boo bu xëy si wut tamit mooy lu mel ne li ma ko waxee léegi àllarba wala gàllankoor yi mag ñi nga xam ne ñoom la ñoom ñu àndoon ak sëñ Abdou itam ñoom it dañuy xëy si ci barab bi buñ fi nekk ba ba ba midi ñu door a ñibbi sëñ Sidi ñaan ñoom ak Baye Mbacke Diop ak Baye El Hadj Amar ak Baye Cheikh Fall ak Baye Cheikh ñëpp dañuy bis bi set dañuy xëy si ñoom it ànd ak moom ci liggéey bi ndax yéene juñ ci am ci liggéey bi ndax yéene ji sëñ bi am noonu lañ ci amee yéene bokkut ak ak donga yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo sax ci barab bi moom mooy ñun ñi nga xam ne ba liggéey bi tàmbalee ba léegi ñooy ko jógewuñu fi. moom Serigne Mame Mor mi ngi xamal ne mbooloo mi nga xam ne ñooy liggéeyee ci bërëb bile Pastef gu mag la ñuy àndal ci bile liggéey. bu ñëwee pas-pas bi ñuy àndal dootuñu xool heure bi lañ war a xëy wala heure bi lañ war a wàcc wala lii la ouvrier war a liggéey lii woon ñoom ñëpp dañuy pas-pas lañ am ci liggéey boo xam ne loolu nag dañ koy sant yàlla euh, dañ ñëpp dañoo man damay wax ne ñëpp dañoo dugg ci pas-pas Serigne Mountakha maanaam pas-pas bi nga xam moom la suñu mën tax am ci liggéey bi moo tax ñi fi andi nga xam ne bokkuñ ci yoon wi sax di fi liggéey si bu ñu ñëwee pas bi ñuy wane da xam ne lii moom euh, mbirum sëriñ bi la waaye waaye waaye du liggéey doomu aadama kese kese gannaaw ba ñu bàyyi ko foofee daal di nañuy dem visiter liggéey bi nga xam ne moom la waa RAIMS di taxawal ci université bu Cheikhul Khadim ñoom ñeekat ñu gis ne seenub liggéey ma ngay wéy di jëm ca kanam bu baax a baax ñu ànd teewlu. من لا تواجن لي ما لا أحب برادي تنكح يا الله ميد مدى أو دين خدت لي كراما في كل سهر ويوم فيك يا الله مهي بخيري أيا تنجوت لي أبدا فلا تسكت أجري بصصب الأمر يا الله مميت قد سخت موتي للدعوة ولا أم مكاري سخت في الدارين يا الله يا عمدي وسكري مرضاي ما أن مني يقص دون سخط منك يا الله يا وسكري من دعي ماء مني يخز دون سخط منك يا الله قتالي ما كنت أنلبو بخير كسب إلى الأرض naka noonee la ñu daal di dem daal nemmeeku liggéey bi nga xam ne waa ca kanam ñu ngi koy amal ci complexe bu seexul xaddim ñoom ñii kat di waa Touba ca kanam seenub liggéey ci université bu seexul Khadim ma ngay way di jëm ca kanam. maa kuntu gannaaw ba ñu bàyyi ci liggéey bu waa Touba ca kanam ci université bu Cheikhul Khadim ci la ñu daal di dem ci liggéey bi nga xam ne opérateur économique yu Touba ñu ngi koy amal ci biir complexe bile ñu gis ne boobu la liggéey avancement mi ngi ci am bu baax a baax awsaltali waajidul asmaana doonaanan لك الوجود راسي لبان يا الله يا ماجد النية دارين متليا بخير كبر وعجب بن ربي يا الله يا وايد النية دارين منفردا ما المنى بآسي سن منك يا الله يا واحد اجعل دارين منفردا مع المنى بآسي سن منك يا الله لك التجائي بما لقير يا سمدي بسرا لجملتي من أحببت يا الله jërë ngeen jëf mbokk yi tey lii la ñu jëli woon andi leen ko mu nekkoon seen reportage du jour comme ni ñu ko baaxoo di defee saa yu ne ñëwoon nag ngir def visite ngir nemmeeku tolluwaayu liggéey ne mooy liggéey bu complexe Cheikh Ahmadou Bamba yi jot nañoo visiter bépp liggéey boo xam ne ñu ngi koy taxawal fii ci complexe bi li ci liggéey bu waa Touba Matériaux liggéey bu waa Isbu Tarxiya liggéey bi nga xam ne seen Cheikh Abdoulaye Kim mi ngi ko fiy taxawal liggéey bi nga xam ne waa Rayim si ñu ngi ko fiy taxawal liggéey bi nga xam ne waa Touba ca kanam ñu ngi ko fi taxawal waaye nag liggéey bi nga xam ne opérateur économique économique yu Touba. ñu gis ne nag liggéey bi mi ngi gën di jëm ci kanam bu baax a baax mbokk yi jaajëfal leen bu baax a baax ci teewlu gi saa yu ne waaye jaajëfal sëriñ Mountakha Ba ci caméra bi. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh